waaw ma ne yéen yi nga xamante ne comprendre leen ba tey la jëm si terre bi am nañoo comprendre ba tey misaal bi lii la pour ngeen comprendre xam ngeen ne ginaar ginaar ba neneen kan moom moom ne ni ginaar gi moo nen mais moomul moomul ne ni boroom ginaar gi moom moom ne ni diggante France nag ak Sénégal ak terre bi noonu la mel. comprendre ngeen léegi ma ne ndax comprendre ngeen waaw baax na ah